asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki Sénégal dama bëgg rek indi tuuti leeral yu gàtt ci single bu bees bi nga xam ne siidu Diop da ko génnee léegi léegi ñu bind ci coow li def épisode Omaro mu mel ni Omaro comédien la wala Omaro day cinéma wala Omaro day wër di duul ak di fen ak dajale ak di buzz buzzuma cinéma wu ma fenuma barke Cheikh Saliou Mbacke mi ma yaakaar ak sama bakkanu doom lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidy Diop dëgg la. dama ne lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidi jóg dëgg la suba teel nag balaa meew ma leen merew ma leen ku ne ngi may woo suba teel dañ la saraxe suba teel dañ la sacrifié suba teel lii suba teel laa mais merew ma maa suba teel. parce que sur le plan technique professionnellement dañu am ay contrat yoo xam ne bi ñu koy lekk ñoom baa suba teel ci turu Sidi di engagé avance bi boobu coow lii amagul. kon bu coow li amee faw ñu naxante ak Sidi ba contrat yooyu jeex ñu doog a xool ñoom fañ jëm ak moom loolu nag am nañ droit ut seen stratégie bu ñu ko gérer mais.